ñu ngi ak euh, madame Fatoumata Niang Ba présidente euh, parti euh, Union pour le développement du Sénégal renouveau nekk itam ca conseil économique social environnemental direction animation scientifique ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey. waaw oh, madame Kane maa lay nuyu di la sant di la gërëm ci rafetlu bu baax tey woote bi. di gërëm auditeurs ak auditrices yi ñuy déglu. alors dañuy commencer ak conseil économique social environnemental ngeen am euh, njiit bu bees Aminata Touré ma fa nekkoon daal di dem naka nga jàngatee coppite googu ak euh, naka ngeen ko dundee. comme li may wax rek président Macky Sall moom moo am prérogative fal ak dindi ku ko neex. tey mu indi ñu le président Idrissa Seck. donc dama koy rafetlu. di féliciter de euh, président Macky Sall si ouverture d'esprit bu mu am. xam ni nag Sénégal rek moom moo ko ñor donc euh, Sénégal su ko ñorul woon du woote un gouvernement d'union nationale si fi ñu jógee donc tamit di wax ni de le président Idrissa sec tamit moom il est à parce que il a su prendre des décisions fortes en intégrant euh, la coalition. alors Aminata Touré mi fa nekkoon bi mu fa jógee barki dem boo Ndiaye dégg nañu ñu tàmbalee euh, teg ay tuuma ci kawam euh, di wax ne ni mu yore woon ak euh, ay mbir yu leerul daal ci wàllu koppar gi moo tax sax ñu jëlee ko fa mu weddi tuuma gi yow loo ñu mën a wax ci yorinam ci boppu conseil économique social environnemental. si yorinam boppu conseil économique social environnemental. mënuma wax lu dul euh, administrativement li ñu seekoon ñu ngi doon liggéey ci jàmb jàmm lañ fa nekk woon liggéey nañ ci jàmb te yàlla def jóge na fa dama koy souhaiter euh, bonne continuation peut xëy na am na lu lu lu lu nga xam ne moom foofu la ko président soxlawee. donc euh, ñu ngi doon liggéey ci jàmb côté administratif daal mësuñu am problème. Mm. maintenant nag comme li may dégg ñuy wax côté finance et autres man loolu awma lu ma ci wax. Mm. parce que mësuma gérer jëm ci finance lu côté ci conseil économique social am na ACPM bi fa nekk am na tamit ces service financiers foofu naa ne ñooñu ah ñooñu nga war a mën a invité ñu ñëw wax la mais man daal li ma xam daal mooy li ñu sekkoon ci liggéey bi ñu ko doon liggéey ci jàmm ba mu fay jóge njiit bu baax la woon wala loo ñu mën a wax daal ci njiit bi mu nekkoon foofa ci waaw xam nga tamit eh, lu ma mën a wax rek mooy tamit jàmb la fa indi ak salaam ba mu fay jógee tamit jàmm ak salaam la fa génnee donc eh, loolu laa ko xamal. CEF nag proche ñu woon trop amuñu woon yenn rapport yu miinantewuñu woon ñu woon bu baax a baax a baax a baax a baax mais jàmb la ñu woon tamit jàmb ak salaam la ñu liggéey ak moom te tamit jàmb salaam la fa génnee donc euh, mënuma wax lu dul rek ne comme moom ak euh, ñeneen ñu fa ku fa jóge woon tamit si jàmb la ñu liggéey tamit si jàmb lañ fa génnee di waxaat ni rek président Macky Sall moom moo am prérogative nommé ku ko neex teggi tamit ku ko neex moom la ko constitution may. alors euh, ñëw Idrissa Seck ci mouvance présidentielle bi yaa ngi koy junj sànq naka nga ko jàngatee sénégalais yi moom ñu ci bari wane nañ ne mbetteel la ci ñoom donte am na ñu mu bettul ndax ñu ngi doon euh, njox su ne waxtaan ak yooyu ci diggante président Macky Sall moo waral tekkaaral gi mais en tant que chef de parti nekk ci mouvance bi noo jàngatee ñëw Idrissa Seck ak ñeneen ñi sax euh, ñu mel ni ñoom Oumar Sarr ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne fekk si nañ leen. man damay wax ñi ñëw fekk si ñu dama koy dama jàpp ni c'est un sursaut démocratique lii c'est un élan de patriotisme ba pare damay rafetlu vraiment di saluer la grandeur du président Macky Sall di saluer tamit son esprit de rassembleur président ko xam-xam ne vraiment tey dafay rassembler su doon amoon esprit de rassembleur du woote dialogue dès le lendemain des élections te tey ralliement bi am rek dafa ñëw firndeel dialogue bi amoon tamit ñu toll réew mi nga xam ne dafa métti parce que crise dafa am crise mondiale te crise mondiale su amee mooy mbas mi nga xam ne dafa am ba touché économie yi foog naa ni dañuy soxla des personnes yi nga xam ne ñoom ils son prêts à transférer leurs compétence au service de la nation pour mun a jàppale accompagner tey gouvernement bi ñu mun a suqali Sénégal donc dañoo ñëw rek pour redresser tamit jàppale président si redressement bi jàppale président si ay réforme am ba pare jàppale président tamit si euh, ambition de euh, vouloir transformer profondément ce pays. Euh, ñu wax ci gouvernement bu bees bi nga xam ne itam taxawal nañu ko ci jamono joo xam ne Sénégal dafa nekk ci jafe-jafe comme àdduna bi yëpp wax nga ko sànq mbas mi ñëw itam mbasaale ñu ci wàllu koom est bi yaakaar nga ne mun na saafara jafe-jafe yi nga xam ne askan wi tey ñu ngi koy jànkoonteel wala lu ëpp ci jafe-jafe yooyu en tout cas. mais xam nga tey mbas mi nga ko tegee. damay wax ni Sénégal dañ koy cité en référence parce que Sénégal tey suñu demee ba nga xam ne mooy dañ naan mooy quatrième pays au monde bi nga xam ne moom moo am meilleure gestion ah de la Covid foog naa loolu dañuy sant yàlla tey président Macky Sall ba mbas bi amee dafa dégagé benn fon bi ñuy wax fonds Covid fonds boobu si lañ jël ay denrées alimentaire jël dundu jël lépp jox ko mën naa ne plus de un million de Sénégalais mu jël pendant deux mois fayal Sénégalais yi seen i facture ndox ak seen i facture kon loolu doo ko xeebal mu dem dans tous les secteurs ku si nekk mu accompagner la ba nga xam ne tey mbas mi comme ni ko yeneen réew yi yëge ñun ñu ko noonu donc foog naa ne tey euh, il a su prendre des mesures très fortes et courageuses te ba mu koy jël cool yëpp ñu gis nañ ko fekk nañ fi mais au finish gis nañ ni tey moom si boppam moo am moo am moo am ndam si si si nit ñi parce que tey mbas bi ñëw na bay waaj a génn te tamit ñu ngi suñu jàmm ak salaam soo xoolee yeneen réew yi li ñu dund ñoom dunduñu ko mbas bi dellu na ginnaaw bu baax a baax a baax a baax a baax a baax tey mun naa ni su du woon euh, tey suñu expert en santé yi wala ak euh, vraiment di saluer nos nos service services hospitaliers le ministre de la santé mais tamit gàcce ngaalaama président Macky Sall parce que tamit ba amee taxaw na ni moom vraiment ñun sentir nañ ni kii bëgg muy bëgg wax ni moom la bëgg réew mi wane na wane na ko ba jeex si tàkk donc euh, on a un un patriote en face de nous te loolu rek daal na xel donc nous saluons la bonne gestion de de cette pandémie. voilà ñu wax euh, léegi ci wàllu politique ñu ngi jëm ci ay élections surtout locale nga nekk euh, Grand Yoff ñu lay gis di la seen lu bari nga yëngu ndax mairie ba daf laa yitteel. mais nee naa kuy kuy politique. mais sa gox daf lay yitteel l'identité d'une personnalité politique c'est sa base donc nit politikul te amul ba goxam yitteelu ko amul mais dafa fekk dama bokk ci coalition te coalition gi ma bokk tamit dafa am président coalition président coalition bi suñu jubloo tey ci mbirum euh, euh, élection locale yi dina xool commune bu nekk xëy na ci concertation kuñ fay tabb te tamit nag suñ si jubloo nag fa laay gën a mën a prononcer woo mais tey li ma amal solo ak li ma bëgg mooy changer l'image de cette commune changer Grand dimbali Grand Yoff maa ngi koy def à travers mes mes mes mes mes actions sociales maa ngi dimbali commune bi maa ngi def lépp lu ma mën a ak lu ma mënul maa ngi leen di jàppale seeni i jafe-jafe maa ngi xool naka laa mën a améliorer tamit euh, les conditions de vie des Grand Yoffois maintenant nag euh, élection locale mi ngi ñëw sunu kanam su ñëwee sunu kanam suñ si tolloo incha allah dinañ mën a prononcé woon changer Grand Yoff mooy ne Grand Yoff fi mu ne baaxul wala melul ni mu war a mel. non Grand Yoff mu mel ni mu war a mel su ko meloon. tey xëy na du ñu ñëw naan dañu bëgg a changer l'image de cette commune. tey dañuy sant yàlla xëy na sax ba président Macky Sall ñëwee ériger notre police en commissariat tey jii nii gën a renforcer l'hôpital CTO euh, Ogui ah tey ba mu ñëwee tamit mu ñëw vraiment indi ñu à côté benn lycée euh, moderne. ah ñu ñëwaat teg si mu ñëw tey soo ñëwee ba si yenn centres sociaux yi tey centre handicapé yi ñëw na fa dugal fa plus de 500 millions donc soo ñëwee ba suñu bassin bi tey gis nañu vraiment mën bi ni mu doon def ak léegi moto pompe yi mu fa def nga xam ne ce sont des coûts yi nga xam ne coût bu colossal la yi mu fa def tax na ba nga xam ne tey ndox bi su ñëwee mën naa ne day ñëw léegi mais après day dem si saasa donc jafe-jafe yooyu nga xam ne waa Grand Yoff ñu ko doon dund président di ñu si jàppale loolu foog naa ni tey loolu mën laa gis mais le maire bi fa nekk deful lu tax ñu ne Grand Yoff jëm na kanam parce que tamit amul bilan gisuma bilan bu mu fa def bilan wam lan la pavage pavage du bilan bilan wam lan la inauguré marché Arafat bilan am lan la nee na si biir waxam am na benn benn benn poste de santé bi nga xam ne mi ngi si ñu ngi koy waaj a inauguré donc euh, y problème. et problème c'est le maire. donc euh, ñun ñu mënul la coalition lu ñu war a def mooy liggéey xool naka lañ ko fay jëlee ñu ñu toog fa. alors ñu wax ci sa ànd ak président Macky la euh, seen compagnonnage kañ la tàmbali ak tey boo koy xayma lan la lay jox. tey su ma koy xayma mooy damay wax nii tey. ànd bi ànd bu naturel la ànd la bi nga xam ne tamit dara lalu ko lu dul dëgg depuis 2010 ba léegi ñu ngi ànd dara lalu ko lu dul dëgg parce que nit booy ànd ak 10 ans nga nekk fa ba léegi c'est parce que dëgg moo ko lal ak jàpp jàpp nañu moom jàpp na tamit le président Macky Sall ñun suñu devoir mooy accompagner ko moom ci ay action politique tamit ci ay action yi nga xam ne tamit si wàllum koom-koomu réew suñu xalaat ñu ko si def suñuy xalaat ñu ko koy jox que mu nekk bataaxal wala ku mu nekk à la presse wala ku mu nekk à travers des de concertation donc ñun dañoo jàpp ni nit sooy ànd ak moom da ngay def li koy jëmalee kanam mais doo def lu koy delloo ginnaaw donc suñu ànd bi man dey ref moo koy rafetlu rek di wax ni ñu ngi siy sant te tamit euh, réellement ñuy ànd daal ànd bi nga xam ne daal comme tout la coalition ni ñuy àndee ak moom. dañuy dégg yenn parti yi di wax ne président xëy na dafa mu faale ak ñu mu faalewul yéen ci fan ngeen bokk. waaw euh, président Macky Sall xëy na faale na ñëpp mais dafa nekk ci kaw njiit la ki nekk ci kaw xëy na euh, mënul xam lépp luy xew. xëy na dañ ñuy remonter information yi rek mu jot ko pour su ko jotee mun a xam ne ah lii de moo amoo lii moo amoon mais yéene na ñëpp. yéene na yëpp su doon sagoom xam naa ni si biir coalition benn jafe-jafe am te jusqu'ici alhamdulilah benn jafe-jafe amul. na leen wala faalewu leen UDSR. non UD gi war diggante ni takk muy àndal am ngeen ko. mais yëg-yëg yëg-yëg weesuwul tey. Euh, su fekkee tey am na li nga xam ne euh, am euh, am na li nga xam ne war nga ko wax mu déglu lu si. yëg-yëg weesuwul tey le président Macky si boppam soo sa soo su la déggee. nga nga wax li nga xam ne tamit moo nekk si yow mu jéem a xool naka la la koy saafaral donc damay wax ni rek tey y a des mécanismes yi nga xam ne nekk na fi suñ ko soxlaa dañ ko bind wax ak moom suñ ko soxlaa mun nañu xool naka la ñuy déposer di jaasa yónnee ko ko mu tontuñu si donc loolu mooy pour man yëg-yëg te tamit am na ay nitam yi nga xam ne teg na leen fi am na si ñenn ñi suñ leen waxee ñun ñu ngi yóbbu suñuy wax di egg si ñu ko koy eggal te tamit dinañ am retour foog naa ni loolu mooy le plus important parce que tamit nag c'est le président de tous les Sénégalais c'est le président de plusieurs coalitions donc tamit nag mënul vraiment mënul matale lépp d'accord dañuy jeexal nag ak loo xam ne euh, tiis na sax lool ci ci dëkk bi muy immigration clandestine bi bakkan yu bari rot ci jamono yi image yeeg vidéo yi yaakaar naa ne teg nga ci bët en tant que déjà ku bokk ci ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi lan la lool di def ak itam lan nga yaakaar ne moo ko sooke ndax yëf yi meloon na lu ñu fay waaye fi mu ne nii dafa jikki-jikki rek jugaat euh, yëf yi boyaat bu wax a baax lan nekk ci ginnaaw loola euh, ci sa xalaat. man damay wax ne immigration clandestine bi phénomène mondial. soo demee nee naa la États-Unis am na mur bu fa Trump def soo demee Libye ñi ngay dem Tunisie Maroc dëkk yëpp ñu ngay dem xëy na bii paa en 2006 lañ doon wax Barça wala Barça 2006 lañ ko doon wax si la gënoon a métti président Macky Sall muy ñëw mu indi fii benn concept toog toog tekki toog tekki googu soo gisee mu teg ko xam nga mu waxoon sax nga pour lan la parce que dafa jàpp ni tey population Sénégal jeunes yi ñoo ëpp plus de 60 pour cent lañu mu jàpp ni jeune pour nga dimbali ko avenir am mu am avenir bu baax. da ngay jaar ci éducation ak ci formation autant état yi njëkk yi dañu doon former nit rek duñ ko jox liggéey. mais président moo xam ne tey pour régler ce problème des jeunes il faut de l'emploi. mu renforcer auto emploi parce que xam nañu tamit secteur informel moo gën a dox ak suñu réew. ba mu renforcer auto emploi bi si la créer ay mécanismes pour accompagner ces jeunes. mu créer DER créer ONFP créer ANPEJ microfinance mu ñëw mun naa la jox rek quelques exemple tey soo xoolee microfinance budget cent milliards président dugal na ko si cinquante milliards yi def na ko secteur informel tey quatre milliards mun nañu wax sax def nañ ko si horticulture vingt cinq milliards artisanat mun naa dem di cité nga ñëw DER DER rek 1894 projets la ñu financé si DER gis nañu DER si phase bu mujj bi dafa nekk en partenariat avec des banques comme la BAD comme BNDE te gis nañu DER ak BNDE jël nañu benn cinq milliards bi nga xam ne jox nañ ko pêcheurs yi pour si de pêche yi ñu am ay camion frigorifique kon kooku xam kooku mu ngi bëgg a dimbali jeunesse am suñu jógee si loolu tey soo demee ay Bambey Kaolack yenn gox-goxaan mais di xam ne tey Jakarta yi ngi mi ngi mi ngi faat xale yu bëri président jël 2 milliards injecté ko si ñoom ne dama bëgg Jakarta ma dindi ko fi indi ay moto tricycle donc kooku foog naa ne mi jeunesse am amal na ko njëriñ tey mu jël 2 milliards def ko si économie numérique mun naa wax ba ñuy dem campagne ñun programme liggéeyal ëllëg bi jeunesse 2035 dafa bokkoon sunu campagne sunu sunu campagne donc may wax responsabilité yi les responsabilités sont partagées mënuñu def lépp nag mais mën nañu wax à 70 pour cent ñu ngi def lu ñu mën yi ma la cité nii yëpp pour jàppale jeunes yi la renforcer leen. parce que yi tamit ñu ngi koy yëg bu baax. ndax ñuy dégg yenn saa yi ñu wax ne yooyu de moom politique yi rek a jot ñu militant yi ñu bokk ci parti yi ku ci bokkul bokk ko ci. Euh, tey ak président Macky Sall si ngay xam ni fii amul kumba am nday kumba amul kumba amul nday président Macky Sall amul xaj ak seen moom nanga doon doomu Sénégal rek doomu réew mi rek da lay jàppale donc DER képp ku muy jàppale jeunes su Sénégal la jàppale beneen bi mooy tey am na ay am na ay financement yi nga xam ne dañ ko jox ay jeunes yi nga xam ne seetaan naa documentaire bi dañoo jël financement boobu demee ko si géej gi tu trouves ça normal normalul donc c'est la faute au président Macky Sall tey jii am na ay waajur yi nga xam ne dañoo jël dajale jox seen i doom 500000 mille jox ko convoyeur yi ñu yóbbu seen doom loolu mooy dangay ngay inciter sa doom xam nga ni lii nii xale bi mun na si fat ñàkk ñàkk bakkanam dee cee gën a yomb mais da nga ko jox pour mu dem alors cinq sa 500000 la wala sa 600000 la xale bi su toogee gëm réewam mun na au moins jël xool naka la si liggéeyee pour mun a jéem am autonomisation déedéet les torts sont partagés. le président Macky Sall tey mu lu ñëw dañ koy teg si kawam mais tamit kiy jël xaalisam di ko jox doomam pour mu dem si géej gi président yorom nekku si ki nga xam ne tey dafa am boutique di def chiffre d'affaires 100000 par mois fin mu am benn 500000 500000 yooyu 500000 nit a ngi fi toog di si tedd nga jël 500000 dama koy fay borom bato bi te fi sa commerce dem kooku prés photo président Macky Sall na sañu fi bàyyi seen i taxi nekkoon ay taximan. donc donc pour wax la ni la carrément c' est pas c' est pas la faute au président de la République les les les torts sont partagés. la population tamit mhm. moom moo war a consciente. population bee war a consciente xam ni que lii nii am c' est un phénomène mondial te day day xëy na mas mi am. tëj nañu frontières yi avion yi mënul dem oto yi mënul dem xëy moo tax ñuy jël gaal gi mais foofu ñuy dem ñu jàpp ne que mag ñëpp dee nañu xale yi ñoo leen mën a dem xettale non non te tamit y a euh, bi am parce que dañ leen gëmloo ne leen soo demee tey am na benn décret bi nga xam ne moom la tubaab yi def dañuy maye kayit maye kayit boobu xam nga naka lay demee ñu fa def 85 ans ñu mën a justifier seen li ñu fa def lii lañu décret bi mais ñoom dañ leen di wax rek ñu dem damay waxaat xale yi ñu ñëwaat à la raison xam ni dëgg la fee ñuy dem foog ni yàlla c'est c'est c'est le rêve li ñuy réagir li ñuy dem tabax këru naa tabax étage non loolu amul gis nga ñun ñi demoon migré ji dañoo ñibbi si fépp métti donc dañu xam ne tey am na ay mécanismes yu ñu leen tegal pour ñu mën a toog si réew mi tekki si réew mi maintenant nag tey mun naa wax lu ñu war a gën a accès mooy l'information la communication il faut qu'on sensibilise les jeunes il faut que communique si lii am il faut que tamit ñu conscientiser ces jeunes conscientiser les familles ñi nga xam ne tey ñoo convoyeurs suñu leen tey euh, daan loxo tegee seen kaw ñu daan leen ay daan yu métti yi nga xam ne même si le faut cinq ans ferme sax lii dootul am si réew mi parce que dem nañu benn moment lii c'est vraiment inciter la au suicide wala inciter à la mort te ñii ba ñu si ëpp mooy les convoyeurs yi nga xam ne ñu si dem ak complicité tamit des populations lu ma si bëgg a wax daal mooy mbëkk mi am gënoon na métti ñun dañ ko fi fekk mais tamit def nañu ay jéego yu mat yu mat pour tamit téye xale yi lu may ñaax xale yi mooy mun nga dëkk sa réew liggéey fi tedd fi dem Europe c'est pas une fin dem Europe taxut a tekki loolu rek laa di ñaax di massaw tamit perte des vie humaines yu si am di massaw bu baax tamit euh, famille yi nga xam ne si ñàkk seen doom damay dem au la damay ñaax tamit les maires même si ce sont des compétences transférées mm. maires yi nañu jouer un rôle majeur si lii les parce que chaque commune a ses réalités économiques tey soo demee Liberté 6 demuñu si mënu bi de soo demee tey ay fan Point Amitié demuñu soo demee ville wala nga dem tey Yoff wala nga dem fenn mais y a yi nga xam ne moom la gën laal wala y a département région yi mu gën laal na maire yi jóg tamit créer des mécanisme de sensibilisation d' alerte de veille pour mën a taxawu ces jeunes là donc euh, pourquoi pas sax ñu am benn assise nationale sur l'emploi pourquoi pas aussi tey président woote benn conseil présidentiel sur l'immigration loolu yëpp tamit dina ci baax parce que tamit xel du doy. jërëjëf euh, Fatoumata Niang Ba euh, di euh, njiitu parti Union pour le développement du Sénégal renouveau UDSR amoon nañu mbégte lool dalal ci matinalu Rewmi FM tey. waaw madame Kane di la gërëm di la sant di gërëm tamit bu baax auditeurs ak auditrices yi ñuy déglu depuis ci suba ba léegi di wax ni tamit maa ngi rafetlu bu baax sama teewaay ci seeni locaux di di la gërëm di la jaajëfal merci.